déedéet fekk naa. ñaw bu ne muur la ma ñaw. dana fekk ëpp naa. xale yi tey le neuf. ci le neuf. yomb. le neuf de dama ca nam. non damaa fas yéene pour kenn àggal. le neuf damaa bëgg a sàngal sama yaay day béy. quê? Boa, agora é lá. Tu es un baax ci nag sama nitu bopp ku ci mel Tu es un ku ne xam na ni les gazelles la génnee Tu es un lay ku ne xam na ni les gazelles la Tu es un bàkk ci samay xaritu bopp yoo xamante ni teraanga Tu es un ku ci mel ni Ibou Thiam borom Lyon waaw Tu es un ci Pape Medina ah wëlbatiku ci Anta Diouf non xale yi la mën naa ne programme fii la neexee fii la safee dix de carrière ça se fait mais li gën a neex ci programme bi mooy da ci ànd sa kilifa sa maire de la commune muy Baydi Seye. waaw ah, loolu loolu muy maire commune Ndiarème Limamoulaye. mu kontaan trop ndax da nga jël bis bi inscrire ko ci thème culture au service de l' émergence. Ah. xanaa kon oro sujet programme la ci dàq ba dàq ci mooy semi nocturne la 7 h lay commencé manam 19 heures minuit mu jall vers ses prestations waye nak tey dañ ni mo won arama ñaan ko boo boga boogaa ko ñu sa kaw manam def na association bu gën a pour jàppale sé barama Baara no Isma Jong nga ni Ibu Jong sama jaar Mara Pape ñu Khalifa Sandaga sa doomu nday sa euh Cheikh Fall Desner nee bi soo taxawee ba taxaw bépp yëre booy sol moom moo lay daggal mais li neex ci programme bi mooy danga maa laal parce que Xaadim Diouf fa Ridis bu Anta. dëgg la sa marraine d'honneur. pare na waaye Bamba design plus ginnaaw raay moom nee na bisu da koo téye ci loxo. sama xarit programme bi daal nii la war a tëggee leen ñoom ñuy bépp doomu Géejawaay. waaw waa VIP bi. surtout samay xarit lañu. waaw samay xarit waaw. mais aar nag am naa ay artistes influents waaw banque sa baaraam ma ñëw danga maa banque loo léegi bankal <laughs> ku ci mel ni Pape Diouf sama artiste invité Ndiolé Tall sama artiste invité Mbathio Ndiaye sama artiste invité Mame Bassim Thiam sama artiste invité euh, euh, Sidi Diop sama artiste invité Mboy Madiaga sama artiste invité mhm. Thiat Seck sama artiste invité Titi sama artis aja deh wëlbatiku nag looga programme toj na ba pare waaye nag du ma pare mukk te remercier ma les partenaires xam nga li ñu daj dafa métti balaa ngay remercier xaaral ma wax la daa des sama dua day sama xarit waaw kooku moo eh, naran la ndaanaan la léegi nag waaw bala ñoo pare il faut ñu remercier partenaires parce que xam nga ne programme dan ñu koy dox ba léegi dañu koo yombal dëgg la en commençant Bamba ñom neen dañu offrir sept étages gâteau bu ñu jugee ci euh, partenaire bi nga xamante mom moy mooy Bamba mhm. partenaire officiel bu moy la commune de Ndiarème Limamoulaye et la ville de Guédiawaye ñu nek ay partenaire officiel dëgg la boogaa bu ñu jugee foofu di leen remercier infiniment Elvision ñom ñoom nañ ma wax la ni la lepp lu couverture médiatique reportage ak lepp lu ñu andal ñom bisoo dañ ko assurer de A à Z Karena samay xarit xana ko sa programme bu ga Karena ni mën nga la lycée do contant na doomu nday fi to kay xam nga lu ci dess ñew rek ñu ay ñu ci la la la waaw waaw fii nag moom. Ah. wa waxewuñu waxu fans <laughs> waxu taalibe waaw waa ñun ñi nga xamante ni sëñ Bamba lañ bëgg. nañ dem abonné ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee ah. nañ dem abonné. Elvision Média